nee na deuxième nation bi al baala parce que jàngoon nañu ha un tey al ha u waxoon naa la ne la mooy xams al ba u nag moom lañu war a jàng tey mooy ñaar waaw al ba u ba isnaani ñaar la wa asxaabu rubon yi ñuy doon rubon isnaani ñaar lañ azawju jëkkër maa al di ànd doom euh, jabar dafa faatu bàyyi fi doom jëkkër cëram rubon la jëkkër cëram rubon wala jabar awi jaatu wala ay jabar maxa aadamil waladi ànd ak ñàkku doom wala tey jëkkër moom ci boppam moo faatu te jëkkër mi faatu amul doom kon soxna yi seen cër moo di rubon kon ñaar ñii rek ñooy ñi nga xam ne ñoom ñooy doon rubon muy jëkkër walla jabar jëkkër li tax mu doon rubon jabar mi faatu daf koo bàyyee doom jabar li tax mu doon rubon euh, jëkkër faatu na te bàyyiwul doom kon rubon ci kat lay génn waaw dañuy jël ak day quatre la ci la robot di génn ñu jël benn benn ba benn ñeenteel ba waaw booy ñu jël benn ba loolu mooy seen robot booy benn jabar moo ko moom booy ay jabar dañ koy bokk